tey jii ñun ñëwoon ci rencontre concertation nationale sur la lutte euh, acteur euh, lutte bi yëpp daje bi yow tey naka nga gisee rencontre. waaw euh, sant yàlla bu baax jullit yonent bi alayhi salaatu wa sant suñuy waajur sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ñaan yàlla sunu borom ndaje mi nii nga xam ne ni la ñu ko ubbee yàlla na jeexe noonu dibéer rek jàmm di wax ni concertation bi nga xam ni tey moo concerné famille de la lutte sénégalaise euh, am ci yaakaar bu rëy parce que du tey la jëkk ndax euh, mars 96 la docteur Alioune nekk ci bopp làmb ji booba Ousmane pay mooy ministre de la jeunesse et sport fekke naa ko at mu nekk bu saison bi ma saa tëj ministre bi ci boppam dina woote comme nii nga xam ni la maxtaar Ba def tey dajale famille làmb kenn ku ci nekk wax li nga xalaat ne mooy defar làmb ak li nga xalaat ni moom lañ ci war a soppi ñu waxtaane ko amoon na nag ay at CNC bi defatul loolu ndax beneen formule la ko defee woon mais delloosiwaat nañu ko tey ndax boo xoolee tey ministre bi ci boppam moo convoqué ndaje mi ministère am ci boppam moo convoqué nit ñi invité leen pour ñëw daje tey nekk loo xam ni lu war di am la jamono ju nekk parce que làmb fi mu toll tey ci biir àddina bi ak dimension bi làmb am tey nga xam ni monde entier ñëpp a ngi koy seetaan bugg ko làmb li mu deree ne tey ci mbooloo deree ne ko tey ci wàllu emploi tax na tey ñu bari ñu ngi ubbi tey ay média yoo xam dañ ko ubbi uniquement pour bokk ci làmb ñu dem ba àgg ci képp koo xam ne am nga matière bu bees làmb nga bëgg a jaar pour wone ko pour ñu xam ko kon làmb nekkatul loo xam ne lii ñetti nit dañuy tëju wala ñeenti nit askan bi ko séq ñëpp l'ensemble ndax kenn ku ci nekk am nga loo mën a defal làmb ndax kenn ku ci nekk am na loo defal làmb ba mu yëg ci fii kon yaakaar naa ni ndajem tey mi ndaje mu am solo la ndajale moo xam ni mii euh, yàlla sunu borom dana ci def barke parce que dafa am nit ñu bëgg làmb am ñu bëggul làmb ñi nga xam nag dañu contre làmb naka jekk saa bu ñu xëyee ci lu yàq làmb la ñuy nekk kon nun ñi nga xam ne tey làmb la ñu opté làmb la ñu mu nekk suñu métier parce que man làmb tax tey ma nekk fonctionnaire de l'État te bari naa ci ay morom kon ñun nañu fexe ba fi ñu nu séentu bu ñu nu fa tëdd ndax fii nu toog tey muy arène nationale mars 62 bi benn Bella ak Diouri ñëwee di ay chef d'État Afrique ñëw fi nga xam ni fii mooy Sénégal Léopold Sédar Senghor bi mu waree ànd ak ñoom pour wan leen li nga xam ni mooy aaday Sénégal ak li nga xam ni Sénégal am na ko te menn réew amu ko boobu xam nga fu ñu daje boobu sànd course fi ñuy dawale course la ñuy dawale course di fi bëre mooy fi si nekk kon tey bu ñu toogee ba am biis bu mel nii di arène nationale 32 milliards monsieur le président de la République Alaaji Macky Sall ma di ko félicité di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla lii nu dëgmal muy élection 2019 yàlla sunu borom def mu gagné premier tour ndax dama ne nu ñu judd avant indépendance chef d'état yi fi jaar yëpp kenn ku ci nekk xam nañ fa nga tàmbalee am nga loo def ci lu baax am nga loo def ci lu rafet waaye nag bi président Sall ñëwee la àggale ñetti seef d'état yi ko jiitu woon kenn ku ci nekk la nga mébétan moom àggale na ko ba indi wàllam ndax fii nu toog tey yaa ko gisal sa bopp añ kay bëccëg la sotti jarul taali làmp kon suñ demee ba def biisu bu mel nii tey jot na ak yi làmb yëpp war di daje taskati xabaar yi daje ñi nga xam ne ñooy bind présent li ñu mel ni yéen ak télévision yi daje kenn ku ci nekk nag joxe ci sa xalaat ndax mbooleem nun ñi fi daje tey commencé ko ci yow am nga loo liggéey làmb am nga foo ko yóbbu am nga loo ci def police ngi taxaw gendarmerie ngi taxaw préfet ngi ci biir su préfet ngi ci biir te loolu musul am wane ni làmb am na dimension ndax 1960 à notre jour c'est la première fois ñuy def concertation de la lutte sénégalaise préfet toog sous préfet toog commissaire toog yaa ngi dégg membre du gouvernement yëpp toog donte ministre sport daana ñëw ak encadrement waaye nag tey dafa nekk lu exceptionnel pour wane ne làmb am na jéego bu rëy bu mu dox ndax làmb li muy drainer tey ci ci Sénégal amul benn discipline bu koy drainer ni ñu ko bëggee amul benn discipline bu ñu ko bëggee parce que li tax ñu bëgg ko mooy làmb njàmbaar def ci feeñ ngar mi di ci feeñ jom di ci feeñ ndax boo seetee à 1930 1934 à 1935 Batlen Siki moo jógee Ndar nekk boxeur di premier sénégalais africain. bu jël coupe du monde ci àddina bi nga xool fi mu mujjoon kon yaakaar naa ni tey bés la boo xam ne noo ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla nañ ci dugg ak jàmm génn ci jàmm di wax ni 1962 ñeenti journaliste yu góor a amoon ak benn bu jigéen benn rajo fi nekkan Paris Dakar journal la woon boo xam ne ci bateau bi la daa ñëw ndax boobu dangay wax ni Obay jóob Alioune Fall mooy papay Jéemati Fall wala nga ne ku mel ni Alassane Ndiaye Alou yaa ngi dégg ñoom Pathé Dieye Fall ñoo fi nekkan à l'époque ak benn journaliste bu jigéen bu ñu wax Annette Mbaye Darneville kon bu ñu demee tey ba journaliste yi ëpp nañu trois cent presse en ligne yi mat nañ cinquante télévision nationale RTS ñëw na ak yeneen télé privé yi ñiy bind ñëw kon yaakaar naa ni tey Sénégal moo ci war a gagné parce que bu sport gagné Sénégal gañe nga xool le président olympique yebal na ki nga xam ni mooy président Njaaña yebal na monsieur Wade le ministre conseiller bu président Macky Sall mu ñëw toog kon yaakaar naa ni tey euh, créé mu làmb ji créé mu Sénégal ñoo daje kon rafet nañu mën a déggoo euh, te wax naa ni xeex bi am Iran ci taabal lañuy toog mu jeex li xewoon Gàmbi bërki démb ci diggante Yaya Jammeh ak président Baro dañoo toog ci taabal mu jeex kon yaakaar naa ne tey biisu bii ñu am saal bu rafet bii ñu am tey nañu doxe xel te bañ a doxe xol nañu doxe xelaat te bañ a doxe xadar loolu daal mooy li nga xam ni moom laa ci gis di ndokkeel nag euh, le président Macky Sall di ko félicité di ndokkeel ministre sport di ndokkeel famille de la lutte sénégalaise góor ak jigéen di ndokkal sur taskati xabaar yi parce que lamb tey sportu Sénégal fu mu àgg tey taskati xabaar yi ñoo ko fa àggale parce que taskatu xabaar mooy tax sport mel ni mu war a mel mooy tax sport àgg fi mu war àgg mooy tax sport ñu mën ko seetaan ci ni ñu ko buggee parce que ñëpp mënuñoo dem stade. non coow li jeex na ba pare parce que soo gisee mise en mise en bi nga xam ni moom la ministre sport teg te Sénégal waxtaan rek a am doom Badara Mbaye Kaba def noonu xool leen xare Badar na mu méttee dun xaaf rey na ba tàyyi waaye jeex na ba waxtaan a ci des euh, lu dem ni làmb ak li muy deree na ci monde ak li ciy génn ci xaalis ay milliards di ci génn ñuy fay benn mbër cent cinquante millions ci benn ngoon mënta ñàkk coow. waaye bu ko yàlla sunu borom dogalee ci jàmm rek lay mujj diggante CNG ak kuréel yi nga xam ne ñoo seq làmb war nañuy xuloo war di juboo war di gise war di waxtaan coow mënut a ñàkk mépp mbir ci àddina mu yàlla sunu borom dogal du ñàkk coow waaye nag nañ ko coow ci xel te bañ ko coow ci xol ndax ala kulli alin coow daf ci war a am daf ci jaadu am ci def ci war a am mais tey moom. bu ñu fi jógee làmb dana jox jéego bu rëy ndax danañu déggoo bu soobee yàlla man maa la ko wax incha allah.